maa ngi leen di sant bu baax mbooloo mépp di leen nuyu léegi ne dugg na kii waxtaan woo xam ne ni ci sëriñ bi dong lañ ciy duggee ci la ñuy tàmbale ci la ñuy yem muy sëriñ Tuubaa nun ay taalibe rekk la nun te duñ doon lenn lu dul taalibe duñ yaakaar kenn ku dul sëriñ Tuubaa kenn nag ñorunu kenn safunu ku dul sëriñ Tuubaa ak ñun fi bàyyi bi loolu wéyee nan sant yàlla bu baax te xam ne réew mi jàmm rekk ci am jàmm rekk ci am jàmm jooju nag kii def ku lu sëriñ Tuubaa man nag euh, li ma leen wax rekk ne murit laa te saari laa bëgg a doon ndax lépp lu mu bëgg mbaa lu muy wut du ma wut ci kenn ku lu sëriñ Tuubaa sama kilifa gii fi nekk sama kanam maa ngi koy nuyu di ko siyaare te jébbaluwaat nag muy sëñ koy bu baax maa ngi koy siyaare ko di jébbaluwaat sama xam-xam nag ci yoon wi li ci xam ne sëñ Basiru ko xamee gannaaw sëñ Mourou Moustapha sëñ sëñ Basiru laa xam ci sant Mbàkke dañ ma fa yóbbu gone laa mënu moon a wax mu jox ma waajur mu jigéen soxna Fatou Mourou Maam ca Kayal ma ba man a wax ñu indi mu mbul ma xam naa fukki at ak ñaar may wax ma ñëwee mbul fa fekk sëñ Abo ak sëñ Bas Xujja fa ñu nekk ma ne faa njabootu sëñ Basiru muy sëñ Buur Ablaay ak sëñ seex ak sëñ Moussa ban fa amee ñaari at sëñ Moustapha jóge muy ñëw fekk nu fa nu bokk fa ne bokk fa ne bokk fa ne ba mu boole ma ak sëñ Abdou Latif Jaara nu ambul ñaari at mu yóbbu ma lappe ma am lappe ñeenti at jóge fa ànd ak sëñ Abdou julli si mooy ndox mu bari moon ci Ndakaaru mu julli si Touba jaareem keroog bi di julli si euh, Bachir Diop moo yor pass parasol bi sa tiib sëñ yor sëñ ba tiim ba di jumaa ja dañ ba noppi ba ñëw sëñ bi waxtaan fa tuuti daal dugg ci biir nu nefa nefa nefa nefa nefa ba añ jot nu añ ci ëllëg sa sëñ bi sëñ bi dafa bëgg na ne day dellu Lappé fekk boo ma ngaa ne Moustapha moom bàyyi nga dëkk Kaolack Moustapha Mbacké bi sëñ bi bëgg a dellu dikk di tàggoo mu ne ko ah Bachir da nga ko fi bàyyi mu bàyyi ba fa mu boole mag sëñ sëñ bi la muy dagana moo doon jàngal foofa laa ne fa laa ne par année ba 1949 mu yooyu ma dem sëñ Mout Baara yàgguma fa moom daal di ñëw nekk Touba tuuti ba ma ñëw njaareem siyaare sëñ bi mu ne foo demaan ma ne ko damaa demoon sama ndey ñu ne dafaa nekk mu lu ngeen nekk lu lu lu jàmm yàlla seen am dana fekk lu ngeen nekk lim du te te def leen lu lu naqari sunu borom de seen maam dana fekk dimbali leen ci loolu laa nekk ba tey jii ma wax yéen musuma wax ci rajo bi nañ def nangam mboolem def nangam maa nañ bàyyi nangam sañu ko dama am kilifa ne sama kanam réew mi it lu ci waay bëgg mën naa am waaye sëñ bi ngay jaar. coow yi bari na lool coow yi bari lool waaye képp koo xam ne nii dem ko sëriñ bu dul noona da ko gis ñun daal ay murit lañu nan nangoo jàmm yàlla te nangoo liggéey tey wéy ci digal yoon wenn kër gi genn kër rek la kër Sëriñ Tuubaa kilifa gu ne biir kër gi waaye kër kër Sëriñ kon bu na noon xam ne nun ñëpp nun benn lañu sëñ bi dafa jur bàyyi fi gërëm bàyyi fi ngërëm nag la ñëpp wut ku ne wut ngërëm topp suñuy kilifa te bañ a xeeb kenn bañ a jóg kenn bañ a wax kenn lan loo xam ne ni bu taxawee doo ko wax loolu daal lay santaane ñëpp te ñu jàpp sëriñ Tuubaa mii ak kom fi bàyyi rekk nag man nag sama digganteeg Baye Fall dañ mel ne Baye Fall nangu naa ko ndax man dama bëgg Cheikh Ibrahima lool. xawma day ci baatin waaye ci saye bi lim ko defal lu ko kenn defal ki xawma ko waaw ci baatin day xawma ko waaye daal ci saayir nii daal lu nit defal Sëriñ Tuubaa lu ko Cheikh Ibra defalut xawma ko Cheikh Ibra yàlla moo ko booleeg sëñ bi yàgg na jar sa ñëw waaye xam naa ne ni mel sëñ bi kenn melu ne moom ci saayir ba tax na lii mu amit ku ko bëgg danga nga jaar fa mu jaar te loolu loolu wéy na lii bu yor moo ko moom lu ko neex def ko ci Cheikh Ibra lii nu war a ci nga xam ne nii dañuy tudd tudd sëñ bi ci moom mooy teral ko te fonk ko te yaakaar ko ndax lii mu am sëñ bi kat bari nañu ko amut bu ñu bu ñu weesoo foofu nag ñun ñii fi nekk duñ tudd sëñ bi dana am jikko ju baax ju rafet te jikkoy gor te yaakaar sëñ bi te fonk taalibe yi te ànd ak di ànd ñoom lii nga xam ne ñoo ko ñoo ko yor bu leen ci kenn xatal ndax kenn du fay sëñ bi rek kay fay. lu la waaye mën a jox sant ko waaye xamal ne nag sëñ bi da koy fay sëñ ba bi fay nag la muy fay am na ko bu baax a baax kon nit ki dafa yëkkati addi am na la sëñ bi addi sëñ Tuubaa ngi nii bu ko xeeb jër sa gërëm nag bay mën ne koy woy waaye jër sa xeebit nag képp ku la jox addi sëñ nekk yàlla sëñ Tuubaa fayal boppam ndax moom rek moo ko mën a fay nu na mënu dara kenn ku ti mbubb na am naa dara amoo dara sëñ bi rek am dara sëriñ boobu nañ jàpp suñu ñaari loxo te gërëm ko te topp ci gannaawam te lu mu santaan def ko lu mu tere nu bàyyi ko noonu rek murit di mel waaye am murit laa rek ala sab sëriñ nga ne diwa sama sëriñ nga xam da ngeen am ay at du ngeen gisee loolu wóorut loolu wóorut ab sëriñ da koy da fay dem di ko seet boo amee addee jox ko boo ko xam ne amoo ko ndax ba fay toog addee yooyu nga yoo tax ku ma toog suñ baa ko fa teg soo ñëwee daal waxal moom wax du ko neex sëñ bi si damaa xam ne boo dee kilifa doo tàmb doo njëkk a wax dangay ngay bàyyi ba mu tàmbali wax nga wax ndax léegi nga wax lu ko neexul waaw ba tax na képp ku dib taalibe boo ñëw sa kilifa bul tàmbali ay tàmbalee wax. dangay bàyyi ba mu wax bu waxee yow nga xam fa mu jëm nga wax ak moom bu la laajee loo xam ne bu la boo ko waxee jàmm rek ci am nga wax ko boo bu la laajee loo xam ne nii boo ko waxee dana ko naqari wala dana ci am lu muy seet bu ko wax kenn doo sa kenn du ko wax lu ko naqari kenn du ko wax kenn du ko def di ci moom di ci njabootam kon nun ñépp noonu lañ war a def su fekkee ne damaa jóge fii dem kër Cheikh Ibrahima ñaa nga fekk naa leen def ni Cheikh Ibrahima ñu rek mu jeex dafa jóge sëñ Baar dafa ñëw Tobaafal gi chef daal di jóg daje moom daal ko yóbbu ci biir di bokk toog mu ne ko ay fii nu tudd mu ne ko Mbaam Fall léegi sa Afrique bi yóbbu Tuubaa mu ne ko yow doo am Mbaam Tuubaa Fall jooje ci bunt ba sëñ Baar ko fa def la julli ca. ñëw naa fa jamono sëñ seex Fall Baye góor ma ñëw fekk mbooloo mi ci bunt bi ma daan romb dugg ci biir jàkk ji julli génn génn góoru Baye Fall bu baax dikk dab ma ne waa ah, doom jàkk ji dugg julli lu tax nga def ko ma ko ah, damay barkeelu rek ci jàkk ji nag suuti sëñ Cheikh Fall génn mbooloo daje ak man daal may lëng ñu nuyoo mu ne ko de Fall dama ko laaj jàkk ji bu dugg mu ne ko jàkk ji de bàyyi ma ko fi def bàyyam dee ko fi def xaw ma ne lu ko wax mu dugg ci biir julli xam naa ne xamut na bàyyi ma ko fi def ma ne ko xaw ko woon waaye xam naa ne rek euh, daraa ngi fi ma ñëw dugg ci biir julli waaw nu ànd dugg ci biir mu teral ma teral daal ma jox otom maa ngi yor benn oto bu ma abboon mu jox ma na dama ne la la yóbbu oto bi topp ci ma gannaaw kii rek lu ma deful rek. dafa amut lu ma deful dafa amut bi ma ñëwee bi ñuy añ maag sëñ Cheikh Fatma ñu ñëw maag moom ak sëñ Dan ak ax ma ñuy añ mu ne ma foo demoon tey ma ne ko Touba Fall mu ne ma ci Cheikh ma ne ko waaw mu ne ma def nga lu baax de booba léegi doom ju ma gis dama ko dem ci Cheikh Fall rek doomam ju gis rek ndax nun ay taalibe rek la moom ko yaakaar sëriñ Tuubaa di ko teral la ay sëtam teral ay rakkam teral ay doomam boo dee ba gis sëñ Cheikh Cheikh Ibra bi Ibra def ko def ko noonu ndax li nuy tiiru ci yoon wi së Cheikh Ibra tere nit bokk sëñ bi Cheikh Ibra tere nit bokk fekk sëñ bi ci blal Cheikh tere nit jiitu sëñ bi jiite ko julli lépp sëñ ko tere ku ñëw it fekk ko fa fekk ko mu toog fi suuf nga toog fi suuf loolu lépp seex la jógee kooku nag buñ ko buñ ko xamee wax nañ ko tëral sëñ Moussa Fall ba nekkee njaareem am na ñaari yoon yoo xam ne nii bi ma njëkk bi ma ko njëkk a gis dafa ñëw fekk nu ci xay googu ci buntu buntu kër gi ci njaareem ma di ñëw daal di nuyoo. mu gaare otoom nii daal di ndax ndax sëñ sëñ sëñ bi jege naa sëñ Bachir mu ko ah, waaw nu ànd ma ne ko nañ dem dugg ci kër gi bi ñu dugg mu ne ah yow tudd ma ne ko Bachir Mbacke laa tudd de ko ah Bachir Mbacke ma ne waaw ma ne ma ne ma taxawal ma ah lu tànk dama yóbbu ma ne ko ah, damaa xam ne rek ab bàyyi baal nga ma tax ma jël yóbbu. boobu xamante wu ñu mu ne ma waaw góor ab ah, bàyyi faal laa de nu ànd ba ci sëñ mu jox ko juróomi junni ak benn manto te waxtaan tuuti man ma dem mu ñu fekk ma jaxaay ga ma toog mu yëkkati ñaar jox ma ma denc ñaar téeméer yooyu di ko lekk ba mu jeex bis nag ma dem kër yëlli wetu kër yëlli jóge fa nag dem këram fekk ni muy ndikk da ngay korole buy ndékk ci benn bool boolu cere boo xam ne cere bool yi nga xam ne amay taq takk ci biir mu ci lekk cere ganaar ma ñëw mu daal di ak ah, si mu ne xee sëñ Bachirou ah noonu de sama am ah, war <laughs> naa yaa de mu daal di génne ñaari téeméer teg ko ci loxol fii ci loxol ndeyjooram daal may jox daal may nuyu su bi ma demee xot naa ci mbubb perkar amee diis laay xotti mbubb ak tubéy ak semis gën dal jën mbaxana mu des ñaar dërëm ak fifteen yooyu jamono nga xam ne jamono ji doyoon na waar yomboon na waaye booy xaas jafe na nag bi may génne ñaar téeméer naa damaa xoolaat dama yow foo jëlee ñaar téeméer yi man ko foo jëlee li ngay jaay <laughs> ñu waxtaan ba ma dem boo fa jógee beneen yoon bi nga ko gis mooy mu ñëw ci sëñ kër sëñ Basiru fekk fu sëñ sëñ bi dem génn dem sëñ bi tukki mu ñëw fekk na fa man ak euh, mbaylaam ak ku ñuy wax Basiru Jóob mu caawoon la mujjeen moom ak euh, fekk maa ngi maa ngi toog sëñ Bas Sam ak Moustapha Lo Abdourahmane mu ñëw comme ñëwee daal di yëkkati xaalis bu bari lañ ñu jox lañ jox nag na leen di ngeen di wut café ba samtaal lañ ko tegoon ci loxoom ba samtaal loxoom bari na nag xaw ma nag nu mu toll waaye euh, bari na ndax gaañ ku ne am na loolu mat yooyu temps fukki dërëm ak juróom ba ba fukki dërëm ak juróom moom génnoo fas hmm? waaw waaw ku ne am na loolu fukki dërëm ak juróom sëñ bi daal dellu. waa ji ko ah mu xaaj gone yi mën ko seen bàyyi rek tax ma indi ko fi de ma fekk ma jox leen ko ñoom ngir boobu positif bu la yi léegi bu ñëwee fekk fekk fekk ñëw fi sama doom <laughs> buñ buñ dompee jox ko fukki fukki dërëm ba dix mille rek doy <laughs> nag da nga wut nag ci man ma nga ca ñoom ndax du kenn sëñ bi rek la. nag bëgg sëñ bi su sëñ bi dénkee sëñ baara ndax ko ne bu mu tas. damay fay waa damay fay waa Touba ñëw fay waa Mbakke armeel yi Mbakke yooyee ak armeel yi ca Touba benn képp la sëñ bi wax na ne ku ñu fa def rek yaa ngi mel ni ku nekk Touba Mbakke Kajoor sëñ Baara yor ko ne fa ndax bi nga xam ne nii jóge na sànna ba mu ñëwee fekk sëñ bi njaareem daf ko ne sànna de jóge naa fa. daal bu nga xam fu may dëkk tubaab yi dëkk walla fan mu ne ko déedéet nag kajoor ngay dëkki mooy suuf dëkk daal ko fa yóbbu waaye sëñ baara ne fa ba tey jii ku baax kii ne fi nga xam ne moom koo gën gisugunu ko ku ko gën gisugunu ko ku ko rawet gisugunu ku gën a nangu ku na gën a nangu jàmm yàlla ko donc koy sant nag di ko gën di yaakaar di ko gën di doyloo nag ndax nun sëriñ Tuubaa rek la ñu bëgg moom la ñu gëm moom la ñu doyloo moom la ñu yaakaar nag moom mii moom laa ko def moom itam maa ngi koy gëm koy yaakaar maa ngi koy doyloo maa ngi fi teg moom nag ba faw lii ma ko jox ci bopp nag déggu ma ko dama ko jox ku dénkaan da laaj man sooruma ci lépp mu ci mu ci loxoom nu mu nga baax na